ginnaaw ban sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di baalu ak ñëpp di baal ña ak ñëpp di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom yërmande te borom mu jéggal mu boone yërëm mu booñu yërëm te boruñu jéggal ginnaaw loolu nag ñu tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom bi nga xam ne mooy borom sant mooy man Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp suñu borom tax may leen kàttan ak wér ak tal goo xam ne danañ mën a taxawoo liggéey ak yéene ji nga xam ne moom la Serigne tubaa amoon ci lislaam ñu mën koo def nu kawe seen jot te daje ci ngërëm suñ borom tey ko ñoom képp koo xam ne itam lislaam mën na tax a jóg te moo mooy sa itte yàlla na suñ borom def ko jox kàttan jox la ak man ak tan ba lépp loo xam ne yéene nga koo defal lislaam nga def ko kawe sa njot ak ña ko àttan yépp te daje cee ngërëm suñ borom ginnaaw loolu nag ñu ñu ngi doon ci nafar bi nga xam ne moom lañ bokk di nafar bokk gi nga xam ne moom lañu bokk di fàttalikuwaat ñu ngi taxawoon ci ne doomu aadama julle rawatina ab jullit war na waxtu wu ne léeg-léeg mu toog seetluwaat boppam moom ndax mu ngi fi mu war a nekk wala nekkul fi mu war a nekk bu ca yàpp naa bu seetloo boppam na mu gis ne mi ngi fi mu war a nekk loola nag la mu ko war a yóbbu mooy la mu ko fa mu ko war a jëmee mooy sant suñu borom ngir xam ne moo ko dimbale ba ma mën a nekk fi mu nekk bu fekkee ne nekkul fi mu war a nekk nag mu jégglu suñ borom delluwaat ñaan ngir mu saxal ko ci fi mu war a sax nekk ci li war a nekk loolu nag moo tax ginnaaw bi nga xam xam nañ ne seet ku seetlu ku ne ngay gis mooy nga gis ne yaa ngi fi nga war a nekk wala ñàkk ñàkk ñàkk a nekk fi nga war a nekk kon te yaakaar naa toll nañ ci jamono joo xam ne doo jullit bu ne war a doomu aadama ju nekk war nay seetlu boppam ndax mi ngi fi mu war a nekk wala war a nekkul fi mu war a nekk ndax xam nañ ne musiba yi nga xam ne mooy am ak yi xew yépp day suñ borom moo xamaloon nañu ne dara indiwu ko fi lu du ndax suñ borom amul lu yërëmane ak ak ak ak ak yiw loo moom rek ëmbal doomu aadama yi mu nekk la am itam kon nag lu xew lu weesu loo xam ne doonutu yiw loo xam ne génn na li nga xam mooy li doomu aadama li noppal doomu adama na xam ne doomu aadama moo ko yóbbee boppam te suñ bopp xam lañu ne xamal nañu ne day li ngeen di def day bari na lool ci loo xam ne du yoon waa banoon naa leen ci topp nag waaye duma leen ci topp nee na ndax bu ma ko defoon day bu fekkoon ne maa ngi ni li xam ne yéen a koy def te du war leen koo def nee na kon du bàyyi kenn ci doom benn doomu aadama ci kaw suuf ndax tooñ yi bari na xew yi bari na nga xam ne itam moonu yóbbee musiba yi bari na kon nag li nga xam ne moo nu ciy dimbale mooy nañ tuub delluwaat ci suñ borom suñ borom xamal nañu ne tuub day moom rëy na ci moom rëy goo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy def du yam ci jéggal la bàq waaye dalay defal tawféex àdduna ak tawféex àllaaxira kon nag loolu doon lu rëy ci moom ndax tuub li li ko tax rëy rëyaay boobu moo di ne tuub day tekki ne yow kat nangu nga ne suñ borom mooy sa borom xam nga ne itam am na ku la ëpp doole am nga am xam ne xam nga itam am na am na ku la ëpp kàttan loolee nga nangoon suñ borom nag moo tax borom boo ko defalee mu jéggal la lépp loolee nga xam ne moom nga defoon du yem ci loola waaye dalay defaral sa adduna defaral sa àllaaxira kon tuub bu doon loo xam ne am lu mat bàyyi xel yonente bi sallallahu wa sallam nag dañoo xamal ne tuub di du ne tuub naa rek yam ca waaye day tekki li mu war a tekki mooy lépp loo xam ne defoon nga ko ci loo xam ne doonul yoon danga ko war a bàyyi te fas yéene am yéene doo ca delluwaat mukk te rëccu itam li tax nga defoon ko te fas yéene sa dudd gi li ci des dootoo ko defaat loola nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon nañ ne képp koo xam ne yaa ngi tuub wax ne maa man de damay tuub ba noppi te tuub googee day mel ni la nga tuuboo nga cay delluwaat tey wala nga delluwaat ci suba mel ni da ngay da ngay da ngay da ngay doon koo xam ne suñ borom tëggoo ko fi nga ko teg bàyyiwoo ko xel itam ni nga ko war a bàyyee ndax koo xam ne def nga loo xam ne waroo koo def ba taxaw ci kanam jéggul wax ko ne ko boo ko def ba bañar bi ko waat di ko defaat day benn ni loola kon ka nga doon waxal fa nga ko war a teg tegoo ko fa ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu xamal ne képp koo xam ne jéggul da wax ne jéglu naa ci bàkkaar ba noppi nekk ci bàkk delluwaat ci bàkkaar ba wala taxul mu génn ci bàkkaar ba nee na day fa koo xam ne dafa doyadal boromam wala dafa benn dafa xeeb boromam wala dafa xam ne day mel ni kuy naqaral suñ borom loolu nag yàlla nañu ci suñ borom jéggal ba du bu àgg foofu mukk ba lépp loo xam ne jégglu nañ ko wala tuub nañ ko ñeneen suñ borom dimbaleel ci kàttanam ak manam ba duñ ca delluwaat loole nag man naa sax am ne xam nañ ne doomu aadama moom munta mat faw léeg-léeg mu delluwaat ci loo xam ne tuboon na ko waaye nag bu tuubee tam suñ borom dana ko jéggal ndax am na yonent bi xadis boo xam ne dafa wax ne doomu maa ngi de joo xam dafa dafa tuub suñ borom jéggal ko mu defaat loola jéggaluwaat suñ borom ndax na ne ba tey xam na ne suñ borom nekk ci kawam xam na ne am na kàttan ci moom xam na ne mën na la am lu la ci moom ba mu ko defee suñ borom da koo jéggal mu defaat ko beneen ñett ba ay yoon yoon ba mujj suñ borom wax ko wax ne kii day comme mi ngi nangu ne maay boromam di xam li li mu def te te li mu def teguwut fi mu war a tege di ma jéggalu bu ko dara kon mu mel ni tuub dafa doon loo xam ne lu am xel solo la lu mat a bàyyi xel kon mel ni nag tolloy toll ci jamono joo xam ne yaakaar naa ne tuub luwaat ci suñu borom xamal ne ko yaa yaa man ci ñun yaa sañ ci ñun yaa yow rek yaay ki nga xam ne yaa nu mën a dimbale rawatina di tolluwaay bi nga ne moom lañ toll buñ ko bokkoon def yaakaar ne suñu borom mën nañoo jéggal mën na fee jële yi nga xam ne moo fi nekk tamit nekk itam te soto sonal doomu aadama kon nañ gën a bari suñuy tuub ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom suñu moo ko wax ne ko topp ma la benn de topp ma la dara ci sa dund moo xam li weesu woon la li nga jublu si moo moo nuy xamal ne man de bés bu nekk dinaa tuub lu ma téeméeri yoon kon ki nga xam ne toppuñ ko dara te mi nga xam ne war naa tuub bay tuub téeméeri yoon kon rawatina ñun ñi nga xam ne nag xamuñ ci suñ bopp dara loolu kon ñu bari di lu ñuy jégglu loolu di tuub loolu lu am solo la ci suñu dund la nañ koy bàyyi xel bari lu bari yonent bi suñ borom itam am jagle goo xam ne da koo defal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax xamal ko ne yow de yaa ngi yaa ngi dund ci sa biir xeet bi mbugal yi xew ci yeneen xee xeet yi ñuy ñuy ñu leen di labal wala ñuy këpp soo ñu wëlbati suuf ci seen kaw nee na ko loolu day moom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dund ci sa biiru xeet wi loolu du xew waaye nag yëm mën naa am jamono joo xam ne xay na doo nekk dund ci seen ci ñoom waaye am na leneen loo xam ne jox naa leen ko loo xam ne lu feeg ñu koy def mbugal yooyee du dal ci ñoom moo di nañuy tuub kon mu mel ni tuub lu mat bàyyi xel la lu mat lu mat di def la rawatina nag jamono jii nga xam ne moom lañ toll moo tax suñ borom mi nga xam ne mooy borom mu njëggal te mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy bàyyi bàyyi mooy mooy moo nuy baal bépp bakkar boo xam ne def nañ ko bu fekkee nangu nañ ko te fu ne am yéene duñ ca delluwaat dogg itam ñu delluwaat ci li des ci suñu dudd moom mi nga xam ne mooy jéggale bakkaar yooyu te ndax yërmande rek la feese ndax xam na ne ñun ñi doomu aadama yi day ñu nekk ci kaw suuf duñ fi tax fi waraat a taxawee dëgg waaye nag buñ waxtu wu ne li feek seen borom di dellu ca moom rek bakkaar ñu mën di def itam mën na leen koo jéggal mën na leen koo ñàkk a kon mu mel ni ñu toll nañ ci jamono joo xam ne wax joojee nga xam ne daa sëñ falu da koo saxaloon ci noppi doomu aadama yi saa yu di wax ne nañ sax ci tuub tey sàkk sarax tey balantu ak mu ñetti baat yoo xam ne lépp àdduna lamboo na ko ndax tuub mooy xam di dellu ci sa borom xam ne moom rek moo ma sañ ci ma moom rek moo man ci yow sa sàkk sarax gi itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo nu xamal ne yéen ñi nga seen mbokk yi nga xam ne dañ wér di day su ngeen leen bëggee wutal saafara bokk na ci yi nga leen di mën a wutal mooy ngeen di ngeen ngeen di leen saraxeel ak yi ak tey balante ak itam mooy tuub ñaari ñaar wàll la ndax benn mu doon tuub tooñ goo xam ne sa digganteek sa borom la wala mu doon tooñ goo xam ne sa digganteeg doomu aadama yi la moom la ñuy tuddee ay xux kon nag nañuy tuub suñ nañuy tuub dañuy say sàkk sarax tey balonte ak di ñaan suñ borom xam ko ne ko moom rek moo fi nekk moom rek moo man ci ñun loola dana tax lii xew lépp ñu mën a am ñu mën a am muñu wala mën a am taxawaay boo xam ne danañ mën a xam nañ cee nañ ca war a taxawee xam nañ ko war a mën a jàlle ndax bu loolu amut di mën nañoo dund ci jaaxle goo xam ak ak ak ak ak loo xam ne duñu xam muy yem xam lu lu ñu ci génne te loolu nag kon suñ borom ba mu wutal nu génnukaay buntu génnukaay boobee nañ koy bàyyi xel te di ko def loolu moonu moonu mën a moonu mën a moonu mën a tax nga xam ne moom la ñuy def suñ borom mën nu koo jéggal ba yërëm nu xam ne ay doomu aadama lañ ñu doyadi yu mat yoo xam ne mënu dara xajut ci ñun te suñ borom kat ba mu waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam li feeg yaa biir xeet wi duma leen mbugal mbugal yu mel ni lam ya daa dal xeet yi jiitu woon bu dee jéggulu itam duma leen duma duma leen mbugal mbugal yu mel nga xam ne moo moo ci xeet jiitu woon waaye nag moo waxaat itam ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal jooxi wa naqsi min al amwali wal anfusi wa samarati wa bashiri sabirin kon mu mel ni loo xam ne dana solo doomu aadama wala loo xam ne dana wone ak masadik doomu aadama du fi jóg loola nag mën na koo dale ci mbokk mu moom amoon te yaakaar ca am ci yaakaar suñ borom jëlee ko fi man koo amee ci alal jooje amoon na ci yaakaar suñ borom faagagal alal alal jooje mën na koo ab ci loo xam ne yeneen yu métit la yoo xam ne doomu aadama xajuwu dara ndax mat dig doomu aadama waaye nag waxtu wu ne li fekk ñu ngi dell ci suñu borom di xam ne moom rek mooy ki sañ moom rek mooy ki mat moom mat bàyyi li lépp li lépp bépp mus mu xew wala bépp situation bu nekk danañ ko mën a jéggi jàll kon nag yàlla na borom mi xam ne moom mooy borom mu jéggal ñu ngi koy tàllal suñu loxo di ko xamal ne ñun de ay doomu aadama lañ yoo xam ne mën nañoo tooñ lool te tooñ yee tooñ yu bari lay doon te xam nañ ne kenn jéggale bàkkaar yi ku yow kon nag ñi ngi sàkku suñu jéggal ñi ngi ndax xam nañ ne yaay jéggalaa kon bi xam na ne yaay borom yërmande yi rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati wa qina azaba أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم